Mariama Ndiaye madame Mbacke bu Sodaaf nekk tamit responsable politique APR ci dëkk bu sell bi di Touba démb yëngal na Touba Daaru Manaan mu ne da ko woote woon foofee ci Touba Daaru Manaan waaye sax mbir ya sax daa mujjee ëpp ci boobee meeting ñi ne nag ñoo dëkkee foofee ak li ko wër fekk xam ne nag moo di Mariama madame Mbacke ngir jàppale ko ci mbébét bi nga xam ne am na ko. te ñii nag am naa yaakaar si ñoom bu wér a wér ndax boo demee si femme seeti bem ba mu indi laat la ñeneen est ce que xam ngeen ni xale yi jóge réew mi tey du man maa leen démarché démarché wu ma leen de groupement de femmes yi ma seeti woon barki démb ñoo ñëw gis ni ma jëflanteeg ñoom ñoom indi xale yi indi ko. askan wi nag gannaaw ba ñu jëlee kàddu gi rafetlu baax kóllëre gi nga xam ne am na ko seen diggante ñoom waaye itam ñenn ñi sax bég lool ba egg ci fent ay woy Oumar Sarr moomee ba mu ñëw ca ndaje moomee daal di yëkkati kàddu jëmale ko ci madame Mbacké ci Pastef bi nga xam ne am na ko ci wetu njiitu réew mi ngir jàppale njiitu réew mi waaye itam porox ndolle ca ndaje ma sànni xeer ki nga xam ne nag moo di Idrissa Seck. Touba nag ñaari fan yi bu may bala ñett bare na riir am na ngóor su gàtt su fi ñëw di wax waaye rëdd Touba Sénégal sax laay wax. kenn gënu ko cee xam Omar Sarr fosu gattax la rek ku ci war lii tooy ci yow lay jóge fos yi moom fas yi moom du ñàkk yow mi ko war yaay sonn waaye moom du yëg loola ku mu waxal ba nga diglu ko ba mu nax la yaa ko yóbbe sa bopp dee leen xool ci jëfam te bañ di ko diglu ndax làmmañ wi kom lem waaye xol bi moo raw kaani ak poobar ngeen moytu ko bu soobee yàlla Macky Sall kenn mënu koo teree am dam gañe na yi ba pare na ngeen ci wane fulla wane ci fayda di félicité xale yiy jóge réew mi ñëw ngir jàppale madame Mbacke jar na ko. Serigne Modou Mbacke Baara Doli moom. Serigne yëkkati kàddu di ñaax ne taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci Touba ngir ñu jàppale président Macky Sall. man de la ma gëm xam ko bépp murit. kay wax nag di wax leneen xam naa ko waaye bépp murit boo xam ne wareel nga sa carte Macky Sall man damay jàpp ne am na lu des ci sax murit kon ñun ñëpp ñun responsable yëpp président Macky Sall au premier tour xam nga ñi fi wax dañuy wër di wax rek sëñ Mountakha waa mu nekk xaadim rasul nee na woon liggéeyal nga sëñ Touba sëñ Touba lay fay mu toogaat nekk xaadim rasul na ko boolee naa la ak sëñ mu ñëwaat barki dem mu ne ko boole waat naa la ak waaye waaye ko gore ku ne woteel président Macky Sall mbégte ma feeñoon lool ci kanam gi moom madame Mbacke bu mu jëlee kàddu gi tàmbali di gërëm ñi nga xam ne ñoo tewee milam ndaje madame Mbacke di xam ne ni ñi nga xam ne wuy nañ amul kenn kuñ ci jox dërëm ngir nga wuy si waaye jëflante gu yàgg ci seen diggante. damay gërëm sama mbokk jigéen ñi ñi nga xam ne ci 4 heures ba léegi ñu fi toog tey ku ne xam nga ni jigéen heure yi ñi ngi war a taale am na naam ñu dem mais dama leen di seedeel di leen leeral ni fii amul kenn koo fi jox paas bu mu ñëw fii. jox paas bu mu ñëw rek na jóg taxaw dama koy leeral toujours même meeting bu Macky Sall bi am barki démb ju euh, euh, Mbacke kaar yi laa teg am kenn ku ma jox dërëm ni la yéegal ci kaar ñu ngi taxaw samay nawle lañu duma jox kenn kaar du ma liggéeyee noonu dama bëgg ñu def politique autrement ndax nit ki. li nga am da koy bokk ak ñoom soo ëllëgee soo leen woowee duñu xat duñu meeting ba nag dafa demoon ba ëpp loxo ndax meeting ba daanaka demoon na bay jeex que ba ñu tàggoo waaye itam responsable politique yi di bàyyee ko waat fu nekk ngir ñëwaat ca noonee mbir ya mel ni sax lu tàmbaliwaat madame Mbacke nag yéenam lenn la rek mu jàppale njiitu réew mi Macky Sall ngir mu amaat deuxième mandat waaye itam ngir mu am ndam lu yaatu ki dëkk bu sell bii di Touba